Merci beaucoup. Donc, après la mise en place du comité de pilotage euh, du Promojet, puis du comité technique national du Promojet, donc aujourd'hui nous sommes euh, euh ici à Thiès euh, pour l'installation du comité technique régional euh, de Thiès. parce que dans le schéma institutionnel et organisationnel du Promojet, il est retenu quand même de mettre des instances à chaque échelle de gouvernance. Euh, donc des instances à l'échelle nationale, des instances à l'échelle régionale et des instances à l'échelle euh, euh communale. Euh, donc aujourd'hui, euh, c'est euh, la mise en place de, de, du comité technique régional de, de Thiès qui est installé par le gouverneur de la région de Thiès et dont on a tenu la première réunion d'installation qui a permis de mettre en place les groupes de travail mais aussi de définir une feuille de route. donc euh, on est dans la, dans, la, dans, la, mise en œuvre parce que comme vous le savez, un projet aussi important qui est un projet essentiellement d'infrastructure, il y a une phase de préparation, donc phase de préparation qui consiste à euh, d'abord euh, euh, planifier les infrastructures, euh, les sites, sécuriser les sites, faire les études techniques environnementales et sociales. Donc nous sommes dans ce processus et ce comité régional euh, va nous parce que ça a permis aujourd'hui de sensibiliser toutes les parties prenantes et, et, surtout solliciter les maires à la mise à disposition euh, de sites. Parce qu'aujourd'hui au, au, niveau de Thiès, nous allons construire, plus, construire 76, 76 infrastructures Euh, donc ça veut dire 66 sites dont on a besoin. donc ce fait que c'est ça qui est le préalable pour la construction. Il faut saluer que dans le cadre du Promojet, euh, de Thiès bénéficie de plus de 30 milliards euh, financement, euh, donc dont 27 milliards pour Euh, les infrastructures, 1,3 milliard pour le mécanisme de financement basé sur les résultats qui va promouvoir la performance et à peu près 1 milliard 200 euh, euh, pour le programme priorité qui va financer des actions d'urgence. donc comme vous le savez, donc, en matière de gestion des déchets, on a une approche filière, chaîne de valeur, donc, qui part du ménage jusqu'au traitement final. Donc à chaque étape, donc, il y a un besoin d'infrastructures. Donc pour Euh, à l'échelle du quartier, on a besoin de points de regroupement normalisés pour accueillir les déchets qui viennent de l'apport volontaire ou bien de la précollecte. Il y a des infrastructures à l'échelle communale comme des centres de regroupement qui vont permettre de regrouper les déchets avant effectivement de les transférer vers les centres de transfert ou les centres intégrés de valorisation des déchets. Donc pour dire qu'il y a des, infrastructures prévues à chaque maillon de la chaîne, des infrastructures pour la précollecte, des infrastructures pour la collecte et des infrastructures pour le traitement. Euh, donc, euh, en plus euh, de l'installation du comité technique régional, on a installé quatre groupes de, quatre groupes de travail. Donc, un premier groupe de travail qui va travailler sur l'aspect foncier. Parce que, comme vous le savez, donc, euh, un des points, euh, euh, points délicats euh, à fort enjeu, c'est le foncier. On a de 76 sites, donc ça veut dire effectivement on a mis en place un groupe de travail sur l'aspect foncier qui va travailler à faciliter quand même toutes les de travail euh, pour aller vers une optimisation, vers une économie faut euh, aller vers une Donc ce que a un groupe de travail qui Euh, et réfléchir, mettre en place quand même euh, les dispositifs nécessaires pour aller vers des intercommunalités au niveau de la région de, de Thiès. Il y a un groupe de travail sur les questions environnementales et sociales. Euh, on a un projet d'infrastructure à fort impact environnemental et social. Donc ça veut dire que toutes ces questions d'impact, de mitigation des impacts environnementaux doivent être prises en charge et c'est à travers ce groupe de travail. Il y a aussi très important. Euh, c'est sur le secteur, la participation du secteur privé, euh, l'innovation euh, sociale. Donc c'est ce secteur, c'est ce groupe de travail qui va réfléchir sur euh, la structuration de l'économie informelle autour de la gestion des déchets. Comme vous le savez, il y a les charitiers, les récupérateurs, euh, toutes ces activités sont dans l'informel, on va les appuyer, on va les encadrer. Mais aussi de permettre quand même au secteur privé local de pouvoir jouer leur partition dans la mise en œuvre euh, du, du Mais ah. au niveau la région de Thiès, déjà dans la phase actuelle, nous avons 43 communes euh, qui sont concernés. Donc ça veut dire que aussi bien euh, les communes capitales régionales, les communes capitales départementales que les ex-communautés de rurales. Donc c'est pour ça effectivement vous avez euh, qui sont concernées euh, par cette première phase. Euh, et nous saluons effectivement la forte mobilisation des élus, de l'administration territoriale, des services déconcentrés qui prouvent une fois en encore l'importance de la gestion des déchets, mais aussi l'intérêt euh, accordé sur ce secteur. Euh, non, euh, parce que l'objectif du projet, c'est de structurer la chaîne de gestion des déchets. On va construire de nouvelles infrastructures. une fois que ces nouvelles infrastructures seront disponibles, les anciennes décharges seront réhabilitées pour les intégrer dans, le, dans leur environnement. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est un projet à forte valeur ajoutée environnementale et sociale. Euh, la première sollicitation que nous avons euh, faite à l'endroit des collectivités, c'est d'abord de nous proposer un point focal. Donc pour faciliter la communication, pour faciliter la collaboration, mais aussi euh, de nous proposer cinq personnes issues du conseil municipal et de l'administration euh, municipale que nous allons former. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'au niveau des communes, qu'il y des personnes suffisamment capacitées Euh, pour coordonner les activités liées à la gestion des déchets. Euh, mais aussi que le maire puisse mettre en place un comité technique local qui va permettre de mobiliser toutes les identités remarquables à l'échelle de la commune. C'est-à-dire que les badiens de corps, les délégués de quartier, les jeunes, les femmes. Parce que l'objectif que nous voulons, euh, tout le monde puisse contribuer à cet effort de propreté que, sous lequel nous sommes en train d'être engagés. pour le financement, c'est totalement mobilisé par l'État. l'État du Sénégal, donc, qui a mobilisé 206 milliards globalement en rapport avec la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération espagnole, la Banque européenne euh, d'investissement et le secteur euh, privé. Euh, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on nous attendons des collectivités territoriales, c'est vraiment un engagement euh, à mettre à disposition un site, à contribuer dans la coordination du projet. donc tey dañu ñëw fii ci Thiès donc euh, fekk ndaje bu am solo donc euh, muy euh, installation comité technique régional bu concerné région de Thiès mu ñëw tolof donc si ci li déjà amoon muy installation comité pilotage projet mais aussi comité technique national projet bi donc fi ñu toll ci wàllum doxalin bi dañoo bëgg effectivement échelle bu nekk mu am benn organe de coordination de gouvernance donc moo tax gouverneur de la région de Thiès bi nga xam ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm aussi tamit en place tey le comité technique régional suñ jugee si lii dañ ànd ak communes yi pour que chaque commune mën a mettre en place aussi son comité technique euh, local bi nga xam ni mooy dajale euh, ñi nga xam ni ñooy yëngatu si biir commune yi parce que li ñu si bëgg mooy ku nekk mën a dugal sa loxo si liggéey bi. Euh, donc projet bi Promojet dafa essentiellement nekk projet infrastructure parce que comme ni ngeen ne fii Sénégal actuellement amuñu benn infrastructure au nombre donc mbalit yëpp dañ koy jal rek si ay sën. Euh, moo tax euh, état du Sénégal euh, si njiitalu président de la République mu mobiliser ressource bu am solo lu toll deux cent six milliards pour investir si infrastructure mais infrastructure pour nga taxawal il faut nga am site. Euh, moo tax euh, ñu solliciter les maires pour que maire bu nekk euh, si sa pàcc nga mën a proposer ay sites yi na xam foofu la ñu mën a def infrastructure infrastructure yi yu nekk lay doon donc en fonction de chaîne de valeur bi donc dina am infrastructure yoo xam si quartier yi lay nekk am yoo xam day nekk à l'échelle communal am infrastructure yoo xam day nekk à l'échelle départementale am na ay infrastructure yoo xam day nekk à l'échelle régional donc Thiès dina am 76 infrastructures yu ñu fa war a taxawal donc loolu nekk si lu toll téeméeri milliards de francs CFA bi xam ni que promotion dina ko def fii si région de Thiès. donc tey taxawal nañ comité technique régional mais en plus comité technique régional bi dañ créé si biir ay groupe de travail euh, parce que comité technique bi euh, yaatu na ba nga xam mën ñu réunir tout le temps ñaar yoon nañu réunir par at mais si diggante ñaari réunion groupe de travail dañ liggéey donc ñoom ñooy def réflexion bi ñoom ñooy xalaat ñooy tënk ñooy proposer ñu taxawal ñeenti groupe de travail bi si jiitu liggéey si wàllum foncier donc xam ngeen ki 76 infrastructures fu ñu koy dafa dafa yaatu euh, bi jàpp mooy intercommunalité parce que li ñu bëgg mooy bu lënkaloo am si diggante communes yi ñu ànd boole pour mën a liggéey parce que mooy tax ñu mën a am économie d'échelle mooy mën a tax tamit ku am jafe-jafe si sa euh, commune beneen commune man la si jàppale donc intercommunalité boobu lu am solo donc dina am groupe de travail boo xam si loolu lay liggéey mu beneen boo xam si wàllum environnement la ak social parce que projet bi euh, dafa nekk projet boo xam projet environnemental moo tax dañu war am euh, foo xam moom nañ koy waxtaanee muy groupe itam kuy jàpp moo ëpp solo sax mooy bi nga xam ni que mooy yokk koom si dëkkuwaay donc muy groupe de travail si affaire au secteur privé bi parce que li ñu si bëgg mooy que saytu mbalit bi mu ju koom ju ay xëy et loolu noonu groupe de travail boobu moo koy xalaat moo koy tënk moo si ànd ak ak. Euh, donc comme ni nga xamee dañ nekk si euh, résultat wu acte trois de la décentralisation donc fi ñu toll communalisation universelle. Euh, moo am Sénégal donc moo tax projet bi tamit jël loolu en compte mu yemalewuñ ko rek si communes yi wala anciennes commune yi mais dañ ko yaatal euh, si ancienne communauté rurale yi moo tax fii si région de Thiès euh, ñeent fukk ak ñett commune la concerné donc mooy commune yi nekk ci capital régional yi communes yi nekk capital département mais aussi ancienne communauté rurale donc ñëpp mm, dugal nañ leen ci euh, li am solo si projet mooy dañ ñëw pour saafara li fi nekkoon comme jafe-jafe euh, mooy ni que décharge yi fi nekk actuellement suñu taxawalee euh, infrastructure yu bees dañ leen réhabilité ba ñu mën a ñu mën ko intégrer dans leur environnement communication vraiment dafa nekk lu am solo moo tax commune yëpp ñu demander chaque commune nga mën ñu baaxee benn point a lay dajale euh, kàngam yi nekk si commune bi yëpp euh, ñoom ñëpp ñu mën a xam li xew si projet bi ñu mën a euh, dugal seen loxo si si projet bi mais aussi du yem foofu dañuy dem aussi ay forum communautaire ay jotaay yoo xam si quartier yi lay nekk pour mën a waxtaan ak askan bi euh, sensibiliser leen informer leen parce que projet bi li koy euh, dundal mooy engagement citoyen bi donc si loolu effectivement projet bi dañ si liggéey ñoo ngi liggéey aussi ak ministère de l'éducation pour aussi école yi tamit ñu mën fa tamit dugal suñu loxo pour que xale yi nekk si école daam am nañ ay groupement ay euh, gouvernement scolaire ñi am nañ ay club ñu mën leen tàggat doole leen ba nga xam ni que ñoom si école dañ mën a gérer seen cadre de mais aussi suñu delloo si kër yi tamit ak si koñ yi dañ mën a aussi tamit baax tax aussi xam-xam boobu ñu am tamit si askan bi yëpp ba nga xam ni que changement de comportement bi ñu soxla ñu mun ñu ko am. Euh, donc euh, projet bi financement bi état du Sénégal moo si ànd ak ay euh, partenaires muy banque mondiale agence France de développement coopération espagnole ak banque européenne d'investissement donc li ñu si soxla mat na communes yi li ñu li leen laaj mooy seen engagement. Euh, mais aussi engagement bi aussi tamit dafa am benn mécanisme bu taxawal bu bees muy mécanisme de financement basé sur les résultats mooy ni que euh, su ñu amee performance par rapport li ñuy xaar ci ñoom dina am effectivement jàppale bu projet bi di am si loolu lu ñu ko bëgg mooy que ñu tàmm aussi tamit euh, dugal seen loxo dugal aussi tamit seen ressources li leen waax ci mbalit bi mooy euh, l'exploitation parce que li ñu bëgg mooy suñu defee infrastructure euh, suba suñu si jugee euh, que mu mën a bañ a ndax saay mais quand même effectivement que ressources yi mën a am pour mën a exploiter